similaire xanaa adduna day bëgg a tukki maar di taali réunion franc-maçon ci Sénégal aw ba soobi li ne congrès kay lañ bëggoon a def kon ci Sénégal gi ñoom franc-maçon yi la ilaha illallah ma ne la ñaari fan jàpp na ko ñetti fan ci weeru février gi waaye Sénégal day nee na dee waaw duñ fi de mu ci këru adduna mu fii ci addina mu ko ma ne la kilifa yi nga day waaw ñi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo yuuxu ci kaw teg leen pression waaw looloo tax ba Macky ak waa këram dellu ginnaaw de ci hôtel ba waaw ñoom ca boppam laa lay wax ni xamal nañ promotion formation yooyee ne leen seen palais des congrès kay duñ leen ko jox loolay dëgg lii dëgg kay mooy Casamance yëngu na sur quotidien ne moo taxit société civile ba nga xam ne moom moo fa nekk day daal day woote dal nag calmer le jeu waaw en tout cas Casamance yëngu na vox populi ne réew mi ci boppam laa lay wax ni moo yëngu de front social bi waaw ma ne la ma ngay jax-jaxi gis nga weeru février gii ah boo sàgganee nag weer bu tàng jër la nar a nekk laa la wax jahanama la ilaha illallah moo taxit gis nga tey ji ci talaata ji waaw gouvernement bi day dana amal ab réunion de ak syndicat jàngale jàngalekat yi waaw ngir ñu daal di évaluer daal di tënk nag la ñu waxtaanee woon professeur Adrien Dior ah. nee bis bu yàlla sàkk ñu ñuy bëgg a rey ak émergence émergence yokkute yokkute émergence émergence teew mënoo ab yokkute di wàllum te yoroo ni ñoo xam ni jànguñu ressources humaines de la wax yoreel école privée yi di établissement privé yi la ilaha illallah ma ne la lu wax ni ci ay étudiants boo sàgganee danañ leen dàq ci l'école bi de yaa jum wala maa jum ma ne am daanaka lu jegee laa wax ni juróom fukki ci ay école yoo xam ne nag maanaam ñaari at yàllaa gi nguur gi war leen a fay te fayuñu leen ministère enseignement supérieur day waaw nee nañ wàllu bayor ko ña nga ca dana dikk ma nga ca trésor cay milliard juróom fukk ak ñeent ci ay milliards day waaw le Sénégal daal di décroché ngir ñaareelu phase yu PIDC jëy milliards ya ca mairie bu Ndakaaru mairie bu Ndakaaru boobu libération yéeni kaay nee na jàppal gi day tribunal CEDEAO gée lay mujjee ah waaw parce que bu Ndakaaru njaajël joob day maa la ko waaye agence judiciaire de l'État waaw ba ñu ko bindee déebu day moom it ma ngay préparé nag a tontu laata jàkkaarloo ba joob Dakar rek ci élection présidentielle yu de parce que gis nga élection député yi day résultat yi ni mu mel ñoom waa kër Macky ñaata la ñu rawee waa kër Khalifa ñaari junneeg juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent 2754 voix kese ak élection yooyu nga xam ne mos ni ñu bone dara baaxu ca laa la wax waaye mu sedd de jéejée parce que Medina kee Bamba Fall moo fay buur di bum di bumi ca Parcelles Assainies kee Moussa Sy ak Thierno Bocoum nga fa Guédiawaye kee Alaaji Malick Gakou nga fa Rufisque moom ba léegi ni lekkoon ma nga ca loxol opposition ba te Sall moo gën a xam ne bu ñàkkee Ndakaaru njaajal jóg kii mooy dem na deuxième tour la ilaha illallah cay deuxième tour enquête yéene kaay ne gis nga élection présidentielle 2019 yooyee waaw mais kan moo war a jàkkaarloo ak Macky Sall looloo jara laaj looloo jara laaj parce Khalifa Sall Karim Wade day mais ñëpp xam ne écarté nañ leen Macky Sall kay léegi ay bajo bajo rek lay jàkkaar lool outsider waaw ma ne la Idrissa Seck bajo bajo Malick Gakou bajo bajo Abdoul Mbaye bajo ne de l'observateur ne waaye gis nga waaw xeex bi xeex bi laa la tey nag ma wax leen ku ci ne lan la war a def yéeni kaay wax du samay kàddu de bu dee Macky Sall ah, daa war a may nit ñi affaire ñu nooyi bu bañee réew mi yëngu tension politique professeur Maurice waaw nee na xanaa xamoo leen ne Macky sax ci jamono bi laa la ne waaw waaw ma ne la atu yàlla bi Macky Sall lu mu fi deful woon ci ay diggéem mënatu koo def ata ko dese bu dee Idrissa Seck nag moom ah, na wàcc sur le terrain ndaamal Kajoor na dem ci biir nit ñi ah, a xool nu génnee alaaji Malick Gakou moom la ko war mooy génn maa ngi taxaw Sénégal Malick Gakou na génn maa ngi taxaw Sénégal googee Karim Wade nag moom waaw stratégie bi mu war a def bu njëkk mooy nu mu dugg seewaat ci biir réew mi kese Youssouf Mbaw parti socialiste Khalifa Sall ci le quotidien yéene kaay nee na opposition bi yëpp ñoo war ñëw bootu ci ginnaaw Idrissa Seck laa la wax uh-huh. Youssouf Mbaw ne waaw en tout cas ñun Khalifa Sall moom bu bokkulee te ñi mu a dajal ci élection yëpp ngir toog sa nguur gi ci lu jaarul yoon waaw ma la Adama Barrow jékki-jékki ne bu xër di génn kenn xamul fan la génnee dajale opposition bi yëpp daal di gagné yee ak jabe yàllaay joxe nguur waa nguur gi day rawatina Seydou ci enquête yéene kaay daal di nay expliqué nag ne njabootu Abdoulaye Wade ci boppam ñoo ñaan sakku ñu baal Karim Wade jaare ko ci buuru waaye tontu du pro parce que kàngam nga xam ne ñoo nekk ci PDS day cadre Gueye daal daa bëgg a dëggal ne kon Macky Sall daa nangul buuru Qatar ba li mu bañal kilifa diine nekkoon fii ci biir réew génn Karim Wade boobee ci kaso bi mais loolu film Hollywood la acteurs yi Macky Sall la Sidiki Kaba directeur de l' administration pénitentiaire bon yo banalisé wër aéroport ba waa kër Abdoulaye Wade yi ne ñun gouvernement bi la laaj nan la ab prisonnier kon mën a génnee ca kaso ba xaajagu lan moo tax ba Karim Wade kon ba mu ubbil tribune yéene kaay alaaji Malick Gakou ne xibaar boobee ñuy wax ci moom dara nekku ca dëgg laa la wax bëgguñu dara lu dul wàllum politique yi nga xam ne kon ñu ngi a ñëw nee ma élection yi waaw bëgguñu dara lu dul yàq deru alaaji Malick Gakou bi rek kese tribune yéene waaye Gakou day waaw dàqul porte nag ñi nga xam ne kon ay soskat lañu li ñu mënul sos kay mooy dëkk bi dëgër na tribune yéene kaay ne en dëkk baa ngi jax-jaxi de yi nag waa ñu bees mooy liggéeykat yi <laughs> alaaji man de émergence kii damaa yaakaar ne xanaa sur le papier ci kayit yi rek la yem milliard milliard milliard milliard dëkk bi jax-jaxi boo paree ma ne la tëjal